ba tey ñu ngi ko xamee rek ci maa ngi lay nuyu. dëgg naa maa ngi sant bu baax ngi sant bu baax ah? waaw maa ngi sant bu baax baax la dese wala ci yéen la dese ah, moom de ñu moom pare nañ moom chaque jour est-ce que da leer na leen ne moom ci moom la dese ak bu dese ci moom mu ngeen yaakaar moo tax mu des ci moom. non parce que man dégg affaire kase laa dégg de mais xaw ma nag exact quoi mais loolu laa dégg quoi après kese laa dégg. mais du ragal du du yooyu quoi jàpp daf leen ragal. non ragal la moom boo xoolee xam ne ragal nit boo ko waxee wax li ngay wax pare ñëpp àdduna yëpp di su ma joxee juróomi dërëm sama bëreeg moom kon problème xaalis yaakaar naa warul nekk problème am waaw mu du ma ma ma pervers kii de boo boo boo waaw ah, mi si jàmm. defe naa yéen a dëkk de yéen ñaar. waaw ñu dëkk moom ñu dëkk moom waaw ah, ku baax a nag <laughs> waaw. <laughs> non moom dinaa ñu wax di ñuy taal taal di wax. ah Ziba da ak waxam wax yëpp yu métti yu wax yëpp ah na jël ko baax bi xool ah Moussa seetlu de. <laughs> ba tey ñu ngi diis. mbër bëgg naa la. macha allah Babacar. Ama ak Modou coow li bëri na ñu ne côté Ama wala côté Modou pare nañ mais côté Ama. actuellement moo des ñii ne ragal ñii ne ama dañ ko fayul lu ko jar yéen nga Ama daa def heure bu laaj Modou rek Modou yu mu nekk mu koy laaj tombé Modou am combat mu koy laajaat fekk saison bi tëj instant bi ko léegi ñun dañoo jàpp ne na moom dafa jàppoon ni daa am lu rek ba jàpp ni moo moo war a mën mais Modou moom su paree ak ay mbokkam rek ay caaxaan jëlu ko de. Hmm. su ma déggee ay caaxaan jëlu dafa dafa dese ñeme wala est-ce que Ama dina ragal mbër. Ama du ragal mbër. mais estaf mën na ragal mbër mi. kon da nga jàpp ne estaf moo ragal Modou. am ah, Modou de moom mën ngay wax nii si ay kii rek mais su paree pour jël la moom caaxaan. caaxaan jëlu ko de wax dëgg. waaw hmm. ah, pour man pour man daal question may dégg ni moom lañ ko fay. Hmm. suñ ko fayoon beneen mbër ba léegi jël na ko sama yaakaar. mais lamb la nag. Ah, ba tey yaa ngi parcelle. ko ñu muudu si bëgg naa la. kii daa de. waaw maa ngi lay bëggee. waaw ah, ñoo lay bëggee. seen diggante ak ama coow la see bëri ñu ne nañ muudu nangu na ama ñu ne nangoogul parce que dañ ko fay lu ko gënalul yéen lu ngeen jàpp yéen ñi nga nga xam ne pare ngeen. ah ñu ah, moom pare moo doon laaj ke moom moo waroon nangu rek bañ di laaj kese bu bëri waaw na jël combat bi. da nga waaw daa war a jël moom waroon laaj kay na jël rek. est-ce que liñ ko fay jaral na ko. ah ku doon laaj kay suñ la fayee kay jëlal rek. Hmm. waaw. waa ziar de kilifa gi waa gis nga Ama Baye mooy lool Ama yaa gën a topp Modou Lo di ko laaj wala. Hmm. yàgg na a trop tey bu nee bañ fay ko quatre-vingts millions quatre kër gu mu dugg Baye foofu mooy loolu dara xajatu fa. bari na trop. Ah. bu ko yeggee ñeme na ko na ko jël. da ñeme wu ko Ama. wax ñi moo ne neex nii rek wax dafa neex de sawaay mais Modou Lo ci biir géew rek mbër yi ñeme ko de. billaay wallaay Ama nag moom xam nga lañ koy xam nañu xam nañ ko bu baax a baax. bu baax. fu ngeen xamante yaa gën a Ama moom moo la gën a xam waa parcelle yi. Ah. xam ne nit ñi mooy loolu daw ñu yoole. daw ñu yoole Ibra. loolu neex na. ci Leewtoo TV lay jàll ba tey góor bëgg naa la. waaw ziar naa la bu mbaa jàmm. alhamdulilah naka peya. sant muñ moytu rek. ba 26 du lañ wax. rek barke Serigne Fallou. xam nga léegi royaume la moo tax. a ah, peya royaume la. mooy oui royaume la. mais waaye fii li nelaw moo. daa ñëw jël ko. Ama Ama na ñëw su ñëwee jaam lañ koy jàpp. di ko liggéey lool travaux forcés. déet lañ koy def fii nii. Ama Baldé xam na Modou. wax jooy bëri nii rek mooy loolu. mais am foo forcé de wuur. billaay tara foo forcé lañ koy def. est-ce que Modou mën na def Ama. Ah, moo nar a dekkiwaat kon. mooy loolu. <laughs> baax na. est-ce que Ama neex naa def esclave. Ama ah, xam na moom. ama ñu xamul sax ñu fekkeewul mais ñun dañu fekkee démb fekkee tey. nga fekk def ko dara. barki Serigne Fallou lu comme lu mel na non mais loolu sax ñun weesu nañ ko ñun tey lañ bëgg ñun Modou defaat ko te booy su dawul hmm. ah? su ko yàlla bëggee moom. dina daaw ah mais bis mu jëlee quatre-vingts millions yi billaay dina dina dina gis lu mës a gis ñii Modou seen moroom la Modou mageewu leen dara Modou moo leen jiitu woon ci seeni mag rek mooy loolu dem defaral seen i mag wàññeeku ñëw di leen xaar ñoom nañ ñëw ak jaam ak salaam rek te bu mu ruux moo ne woon suñ nga fayee ñaar fukk sax mu bëreeg Modou kon na am ngoru ñëw rek jël quatre-vingts yi te sëgg mu xool. ni dami nit ñi waa Pikine soxna si yow li nga so rafet na trop macha allah. waaw merci. mais Modou ak Ama soow li bëri na yéen ñu ne waa Pikine dañ ñu ñoom dañ leen a fayal lu ko jaar mais bu ñu leen ko fayee moom ragaluñ sax Modou ñu ko sax ragal ñu yéen ñu ngeen gis. ah Modou Lo moom du moromu Ama. Modou Lo rek. xa moo yeey bañ a jël liñ ko fay parce que Modou Lo du moromam. loo jàpp ni moo tax jëlul liñ ko fay. ah. loo yaakaar moo tax jëlul liñ ko fay. parce que Modou loo moo ko mën moo tax muy wax loolu rek waaw. loolu tax muy moytu quoi. waaw moo tax muy moytu Modou Lo rek. Ah. du moromu Ama daal. am na solo loolu de la wax. donc moom gis nga écrit parcelle wala gis nga mu loolu moog énergie monsieur le maire ngi monsieur Moussa Sy ñu koy nuyu di ko siyaar Alioune Dione directeur technique Rock Énergie Khadim Gadiaga président Rock Énergie ancien président suñu père Cheikh Sow ak Aziz Diagne secrétaire général bu écrit bi kon staff Modou ngi nii bu la neexee nga ne. mais si kan la war a njëkk parce que ñun dañ doon def micro trottoir ba yem ci ñoom. nga nga introduire xaadim waa kon introduire rek. parce que yàlla xam na ni da nga ñëw yem ci. te bërki dem bi ñu réunion lañu la ñu programmé boo maire ab euh, pour am lieu d' entraînement li nga xam ni moom mën naa ne boo xoolee écurie yu nekk ci ci ci Sénégal yëpp wala ñu nekk Ndakaaru yëpp c'est pour la première fois ñu gis maire bi. taxaw taxawaayu octroyé benn lieu pour écurie bi nga xam ne mooy écurie phare di représenter parcelle mun fa entraîner parce que géej dina toll période boo xam ne day sedd lutteurs yi duñ fa mën a entraîner mais dama koy gërëm encore une fois ci taxawaayam parce que moom sportif la léegi lañ doon wax muy fàttaliku bi nga xam ni boobu ñun ay gone lañ boobu moom moo ñuy jël ñu ñëw tracé terrain bi bu ko tracé après ñu mën a dugg ci stade bi loolu li ma lay wax ni ëpp na ñu ngi jege 30 ans parce loo xam ne ay 83 84. vraiment moom euh, produit sportif sport Parcelles Assainies la jaar ci nawetaan euh, écrire ak bi keroog bi ñu war a defee assemblée générale tamit daf ci joxe conseil am yamu ci mu octroyé ñu terrain bii ngay gis nii nga xam ne waaw mën na presque plus de sept cent voire mille mètres carrés. kon da seen diggante ak Ama fi mu nekk nii moom comme sax terrain sax yéen a ngi koy ut fi mu am ngeen ko ba pare. loolu pour continuité la xam nga du du du Ama rek écurie bi dafa am du Modou rek dafa bari ñu ne ci ginnaawam mais Modou moom mooy lutteur phare boo gisee fan yi may wax dama bëgg lépp ñu tegaat ko ci yoon parce que on a on a un directeur technique Modou ak war nañ bëre Modou war na bëre ñëpp parce que bu làmb mooy métier. mais écrit aussi l' écrit est souverain. leneen aussi di gërëm aussi staff bi nga xam ne moo tax parce que le directeur technique est là boo xoolee il est 15 si tàngoor bi dañu ñëw ànd ak moom moom dina fi def suuf dana ko miire dana ko utal porte dana ci def lampe donc amuñu fayam parce que ku def tamit ñu wax la intérêt parcelle moo tax boo xoolee stade bi moo nekk na le fële lañ njëkkee. stade bay nekk na le léegi léegi léegi mu pare presque pare na matériel yeeg yëpp a ngi fa octroyé ci salle boo xam ne salle bu mag. parce que Aliou Dione moo nekkoon entraîneur équipe nationale gréco jeux euh, olympiques yaa ngi fi. amaguñu ay xale yoo xam mën nañ représenter Sénégal en matière de lutte mën nañ fournir CNG euh, loolu tamit euh, comme moom nii danaan téye grand yi ànd ñoom stade amitié di leen téyel ñuy gréco am na salle boo xam ne mën nañ fa def jeu olympique lutte olympique mën nañ fa def judo mën nañ fa def karaté am na beneen salle boo xam ne mën nañ fa def fitness mën na am salle de musculation en marche ñu koy ñaanal jàmm di ko ñaanal aussi suma rakk Modou di wax rek euh, suma diggante Birame ñu ngi amul problème. kon léegi combat bi yow su ma la déggee ci amul problème mooy bi jël bi ko Birame jël jël léegi ànd nga ci parce que dañu déggoon fa dañu ne xaar na ne àndu ci. Birame waxtaan nañ combat bi Birame jëlagul dara. Ah. biram jëlagul biram dafay waxtaan ak promoteur bi. Birame jëlagul dara maanaam. jëlagul avant je vous li ma la wax lu la Birame wax téléphone am nañ accord de principe. jubóo am na. accord de principe moo am. mais man li muy bëgg saa su ne euh, mbër bu ñu koy jël ñu waxtaan ak staff technique bi le volet financier ñu suñu yoon nekk si volet sportif la ñuy wax dañ ne la volet sportif ak vole technique ñu consulter les entraîneurs et les directeurs techniques ñu joxe seen avis xool ndax adversaire boobu compatible pour ñu jël mais Modou ñu ragaloon ko pour kenn Modou fu mu dee a dee fa moom xam na loolu man xam naa ko mais je suis le président te dañu war a régner l'ordre dans l'écurie bu Modou jëlee avance bu am Birame ñu ngi jëlee avance dem feneen yëguñu ko beneen lutteur boo xam ne jël na avance te entraîné wul keneen jël avance keneen jël avance day nekk anarchie looloo ñu waxtaan te nañ ba déggoo ci loolu war nañu réunion ak lutteurs yi demain pour xamal leen actes yi nga xam ni am nañ ko diggante ñun ak maire Moussa Sy yi ñu defal war nañu réunion yi xamal leen ni entraînement yi tegal leen règlement euh, euh, intérieur bi nga xam ni muy mbër mi ba ci Modou Lo ba ci gën a tuuti ci écrit bi ñëpp ci la ñuy tënk absence yi duñ ko toloore kuy demati fenn da ngay def demande d'explication wala demande d'excuse ñu xam ne ci yow nangam moo tax entraîné wu parce que dañu bëgg ren écrit bi nekkaat ci ni mu daan nekkaan di raw di raw ci écrit yi. jaar ci yoon daal jaar ci yoon waaw. am na solo balaa mu ñëw ci monsieur le maire moom monsieur le maire mooy moom mooy tëj. waaw mu ñëw ci directeur technique parce que moom tamit bu ñu wax côté bëre moom yaakaar naa directeur technique bi bokk na ci ñi ci ëpp importance ñu leen nuyu Alioune Dione. Euh, maa ngi leen di fay waa Leewtoo TV di leen nuyu di leen gërëm ci ñëw bi ngeen fi ñëw waaw di leen wax rek presque li ñu fa doon wax yëpp wax na ko damay dellu rek en di. am benn cant ak boo xam ne dama koy jëmale suñu maire Moussa Sy ndax dañu sonn ci fii ci wàllu sport xaale fii ci wàllu luy dajale jeunes yi dañ dañ ci sonn te moom mii aussi daf ci bay waaram ba fi mu toll fi mu agsi nii yaa ngi dégg xam nga lii ku ñëw la dañ koy offrir ñu war fi ñu war ko aménager defar ko ah? kon kooku war nga xam ni lu mu la waxati rek bii boo nga jàpp ko stade baa ngi nii non seulement waxul bu bu multifonctionnel la. lépp mu ngi ci biir sa lépp a ngi man ni salle de judo lutte musculation lépp mi ngi fi te te dafa toog di déglu conseil nit ñi ak ñi ko wër mës naa fi ñëw maa ngi rappelé bu may dogg jógee Europe ñëw ñu Europe ñu koy wax ma ne ko danga nga suuf tribune yi dañ koy xëy na sax nekkoon na projet ci boppam mais ma ñëw rek dafa dégg man su su ma gisee mu def lu mel nii tey duma def lu gëm bi te te nag woo jeune parcelle yëpp tous les sportifs yaa ngi dégg ñu rendre ko hommage te xool li muy def lan la yaa dégg am solo waaw. mais dinaa dinaa am lu ma laaj balaa may dem ci monsieur le maire ci côté technique parce que bu ñu wax làmb parce que 100 pour cent Modou Lo ak Ama Baldé yow en tant que directeur technique validé nga combat boobu. non dégg wax naa wax naa ko fii bu yàggul ci YouTube dama ne man personnellement ku ma bu ñu jël ñun amuñu ay Ama Baldé ay Balla Gaye yooyu yooyu suñu problème ak ay tafatin mbër bu ñu jëm ciblé ba ne kii la rek ñun dañuy liggéey en fonction climat boobu fii nag dafa suñu plan programme jëmale ci compétition yi te duñ si ay du si ku ñu xam-xam ni ñun ci professionnalisme la ñuy liggéey. planifié loo gis dañ koy liggéey ba atteindre yooyu objectif. mais ama planifié ko planifié ko est-ce que yomb na Ama Baldé. mais dama ne ku ëpp ku planifié ay ëmma seen mi. waxuma planification nekkul ni mbër bi kese dañuy lépp lépp préparation la waaye ndax ama préparé ko daan dégg na xale la te na fexe na ba activité kaw xam nga nit aussi doo ko kiil ko yaa ngi dégg mais nag na xam ne aussi ndaanaa lañ fi fekk waaw te nag dama bëgg nga xam ne eh, ñi nekk léegi ci staff toog énergie bi yaa ngi dégg du ay cuuraal nekkuñu fi du toute façon ñun suñu wax bëriwul ñun suñu liggéey moo ëpp solo ak li ñuy wax ak li ñuy li ñuy jëf. Mhm. maa ngi lay fay. baa yaa ngi am sant bu baax. Moussa si meeru parcelle. Equivox Energy nekk parcelle tey ñu ne da nga leen jox benn terrain boo xam ne da nga fas yéene def suuf miireel leen ko def leen ci ay porte pour ñu fiy continuer di entraîner loolu maanaam lan mu indi sa xel ba nga def loolu wala lan moo la liyee ak waaru Energy ba nga def loolu. bon maa lay sant di nuyu waa Leewtoo yëpp. di nuyu waa Sénégal di nuyu président Khadim doyen Cheikh Sow grand Lune ak grand Ziz donc euh, je pense que ñoom li ñu wax euh, presque li ma ciy teg du bari euh, fii jàpp naa sax depuis daaw lañ ko bëggoon aménager mais processus bi ni mu demee woon mu sottiwul mais ren gëm nañ ni comme que saison bi ñu doo ko démarrer hmm, presque ubbeegul donc jàpp nañ ni fii ak 10 15 novembre dinañ leen mën aménager site bi ah, yokk éclairage bi. fexe ñu mën fi def seen entraînement parce que géej gi si day sedd hmm? day sedd fajar bi ensuite euh, foo ñu am fu nit ñi mën a def corps à corps fu ñu mën a def entraînement yu yu normal ensuite des fois dañuy soxla public te géej dafa sori donc loolu suñu devoir la c'est-à-dire que même bu dul rek énergie euh, bokk na ci ay terrain d'entraînement pour toutes les disciplines mettre ko à disposition beneen obligation bi mooy jox leen ay subventions voilà ñu li ñu def rek lu ñu war def mooy organiser. ñoom ñoo war a organiser mais ñun fi ñuy organiser ñoom ñun ñoo leen ko war a disposition mooy infrastructure ngay gis ni terrain tennis terrain basket ñu nekkee maire ci la ñuy xëy suba ngoon guddeeg bëccëg donc laaj na aussi fi ñu te ensuite dem yooyu yëpp dina yemb ci mois de décembre bi donc stade cas loolu yëpp dañuy sant suñu borom bu ñu indilee loolu ginnaaw presque fukki at bu ñu amee gis-gis bi am vision bi euh, Rock Énergie nag nekk écurie boo xam ne écurie bu mag la ci Sénégal écurie bu fi am tur am taxawaay am palmarès am parcours. Hmm? donc bu nekkul premier kenn du ko génne si deux premiers écuries yu Sénégal donc loolu dafa am solo ensuite suñu mbër euh, nekk euh, vraiment ñëpp xam ko. Euh, kenn yàggu ko leen dans de bonnes conditions ñoom ñi ñoo koy encadré. ba résultat yi nga xam ne bëgg nañ ko ci mbër mi mu koy am. au delà de Modou Lo sax tous les passionnés de l'écurie parce que aussi il faut ñu am relève après Modou il faut ñu am yeneen mbër xale yu bari dem nañ tukki dem nañ kii mais il faut ñu amuwaat leen ligue gërëm mi ngi fi Wuri mi ngi fi ak ñeneen leen ñu defaraat parce moo doon euh, vraiment laboratoire bi moo doon bastion bi moo doon laboratoire bi donc ñun ñëpp Assane Alioune ñoom ñëpp fii la woon affaire bi ah. yaakaar naa bëri na ay équipe fi nekk est loolu xalaatoo mu di benn jafe-jafe ci diggante mu des. non amul benn problème donc fii ku bëgg a entraîner di nga ñoo xam ne sax quartier yi nekk Birahim Ndiaye terrain unité 22 kenn xëccoo ko ak moom. mun na fa entré waa 18 waa euh, am na beneen écurie saa ñaam bu na defe naa ñoom daan ah? na ñu doo moom doo ko mag ah? moo ko jëkk ci làmb moo ko ëpp expérience ndaw la nag temps ah, xeebuñu ko donc duñ ko ñàkkal fulo duñ ko ñàkkal fa dañ koy respecté mais moom na fexe rek bu jëlee avance mu xam lu koy xaar. lan koy xaar. ah bëri xanaa. <laughs> ama ama kay ama doomu mbër la de. champion la doomu mbër la champion la kenn weddiwu ko ah. yow da nga yaakaar su mbër dàq bëri ama muudu. non man daal je sais que euh, xam nga nit du bàkku bàkku baaxul waaye man xam naa sama mbër. moo dàq bëri. loolu wax taxatul ñuy wax. moo doon dàq bëri ama. non taxatul ñuy wax je sais que ni euh, ci ci joxante respect rek war na nangu loolu. maanaam mu ne moom wane leen mu wane ko ñu gis mu nangu ne ama ko mu do ko dàq du benn moo ko expérience moo ko dàq bëri machine mu daan moom man dem dem naa Pikine ñoom ñoo moom parce que yéen fa ngeen daan jànge ñoom xaalim nga yëg ñëpp ay nekka ay gaa yëpp dégg naa Pikine lañ daan dem di entraînement ji ay dol fa gaa yooyu bu yàgg ba man ba may nekk gën a nekk tout tànk fii daan na am ëmma seen par exemple moo baaboy ah. mais boobu ñu ne boobu dañ toog suuf di leen seetaan bu demee ba toll fu mu toll ba nekk roi des arènes jaar Cheikh Moussène mais nga xam ne yàlla rek moo moo am moo moo. nga yaakaar Amadou fokkati roi boobu bu ko ma taxawee. ba ba combat ba jot incha allah. waaw ba mu jot. incha allah kontaan nañ ci yow monsieur le. jërëjëf man tamit kontaan naa ci yéen sant leen gërëm leen. ok merci.